Hi there, this is your brother Sharif from Color. In today's lesson, we're gonna learn some great and wonderful sentences in English. Assalamu alaikum wa rahmatullahi mbokk YouTube seen seen YouTube kaay làkk anglais ñu ngi leen di dalal tey nag euh, ñu am leçon bu ama am solo muy indi ay phrase ay kàddu yu siiw yoo xam te ni daanaka doo euh, jeexal bis bi te ko. wala nga jëfandikoo ko kon dañ ciy bàyyi xel bu baax a baax let's kàddu gi ñu njëkk am mu ni is that enough ndax loolu doy na is that enough ndax loolu doy na léeg-léeg nit jox la menn mbir ni la is that enough ndax loolu doy na ñu amaat baneen mu ne you should go you should war a dem kon dafa mel dafay jox nit ki conseil wala daf koy laabiir koy laabiire mu ni ko you should go dangaa war a dem ñu amaat baneen mu ne what's your phone number lan mooy sa numéro téléphone what's your phone number lan mooy sa numéro téléphone I decline I decline ma bañ wala ma lànk nu bàyyi xel bu baax a baax nag ni ñu tuddee baat yi maanaam niñ koy prononcé ci anglais waxuma I decline waaye I decline laa wax waxuma tamit I decline waaye I decline la wax how much is it ñaata lay jaar how much lay jaar wala nga gën koo gaawal ni how much is it ñaata lay jaar I am at home maa ngi ci kër gi I am at home maa ngi ci kër gi léeg-léeg nit jël la téléphone ni la yow fan nga nekk nga ne ko I am at home maa ngi ci kër gi how old are you ñaata at nga am how old are you ñaata at nga am soo ko boolee nag pour liir bi gën a gaaw sooy làkk mën nga wax how old you wala nga ne how old are you ñaata at nga am muy liaison bu mat a bàyyi xel I do not mean it jubluwuma ci loolu I do not mean it jubluwuma ci loolu go down wàccal go down wàccal go down wàccal thank you for inviting us jërëjëf ci woo gi nga nu woo thank you for inviting us jërëjëf ci woo gi nga nu woo wala thank you for inviting us jaajëf ci dalal gi nga nu dalal su la dalalee mën ko wax thank you for inviting us ki dalal jaajëf ci dalal gi nga nu dalal wala nit wala ci anniversaire am wala ngénteem nga ne ko thank you for inviting us jërëjëf ci woo gi nga maanaam woo gi nga nu ci xew wi are you coming are you coming ndax yaa ngi ñëw are you coming ndax yaa ngi ñëw I disagree with your point of view. I disagree with ci sa gis-gis bi. Su fekkee menn mbir dafa xew nit ki wax gis-gisam soo ci àndul sa nga ko ànduma yow ci sa gis-gis bi. I don't know what to say I don't know what to say xawma lu may wax xawma lu may wax léeg-léeg situation dikkee la noo xamante ni doo xam lan nga war a wax léeg-léeg ab laaj dikkee la tamit noo xamante ni sa xol day fees dangay ngay bég wala da mer ba ni I don't know what to say xawma lan laa war a wax mu nekk phrase bu neex ñu ci xel macha allah I do not like this food I do not like this food bëgguma lekk gi maanaam xeetu ñam bi bëgguma ko I do not like this food bëgguma lekk gi I am a bit worried dama xaw a jàq I am a bit worried. Dama xaw a jàq. am a bit xaw a jàq. dañuy bëgg mbokk yi la liir mu nekk liir bu yéex pour que ñi nga xam dañ dañuy soog a dugg ci anglais ñu mën a comprendre bu baax ni ñuy liire baat yi. Will you do a favor to me? ndax dinga ma defal teraanga will you do a favor to me ndax dinga ma defal teraanga would you speak slowly kon am nga frage boo mën a jëfandikoo sooy wax koo xam ne ni xëy na anglais am dafa bar wala anglais am dafa gaaw suy làkk doo mën a xam li muy wax wala soo taseeg américain bi Eh, muy wax mu bar lool mu gaaw man nga ne ko would you speak slowly xanaa doo ci jàpp nga wax ndànk maanaam nga yéexal sa kàddu du mu wàcce kàddoom de mais mu yéexal ko wax baat par baat pour nga mën ko comprendre remember me during your prayers fàttalikuma ci say ñaan Remember me, please. fàttaliku ma. During your prayers, ci say ñaan. maanaam da ngay dégg ñu naa bul ma fàtte ci sooy ñaan bul ma fàtte loolu rek la ba wax mooy sooy def say ñaan ak yooyu nga may nga may ñaanaaleel mu nekk phrase bu neex. Do you drink coffee? ndax dinga naan kafe soo amee gan macha allah eh, bala nga koy jëndal kafe man nga ko laaj do you drink coffee ndax am na ñoo xam ne duñ naan kafe waaw bu dee nag kàkk gu mel ni man loo ko ci kafe mu naan <laughs> do you drink coffee ndax dinga naan kafe blow your nose ñandal sa bakkan bi walla ñandul loolu xale bi lañ koy wax xale bi xamul dal lan naa ko blow your nose ñandal sa bakkan sa bakkan bi wala ñandul ñoo bokk lu ñuy tekki have a good day amal bis bu neex tey soo nekkee ni kii ba muy dem ku nekk jël sa yoon bëccëg gi mën koo have a good day amal bis bu neex maa ngi lay ñaanal nga am bis bu neex waaw Why do you lie? lu tax ngay fen why do tax ngay fen su fekkee nit ki dafa tàmm wax lu dëgg mën nga ko wax why do you lie lu tax doo wax dëgg li mu tekki nag directement mooy lu tax ngay fen I am getting wet. maa ngi tooy. I am getting wet. su fekkee taw bi dafa jékki-jékki rek sóob nga daw jëm sa kër am na nu mu demee rek da ngay daal di tooy. I am getting wet. maa ngi tooy. kon wet mooy tooy wala yow sa jëmm boo tooyee mën nga I am wet. I am not sleepy. Gëmmentuwuma. I am not sleepy. Gëmmentuwuma. Sleepy mooy ku gëmmentu ci anglais bokk la nelaw waaye koo xamte ni am na bëgg-bëggu nelaw loolu la naa ci anglais. Don't whisper. Bul ngurum ngurumi. Whisper. bokk na ci verbe yi jàngan muy tekki ŋorom ŋoromi wala dey fii nag lim ci jublu xam naa mooy bul ŋorom ŋoromi maanaam bul wax ci suuf mais waxal ci kaw switch off the fan fayal ventilateur bi switch off the fan fayal I'm feeling cold dama liw wala dama sedd I'm feeling cold dama liw walla dama sedd wring out the towel najal serviette bi waaw digga naa sarbet serviette mu ni wring out the towel najal serviette turn off the light fayal làmp bi fayal leer gi turn off the light fayal làmp bi comb your hair peñeel sa karaw gi comb your hair peñeel sa karaw gi kon comb kenn du wax comb bokk na ci lettre yi ñu ni sunu ñëwee nii duñ ko liir muy leere bii maanaam lettre B kon kenn du ko lii fii mu nekk mais itam kenn du ko effacer noonu lañ ko ci bàyyi ñu amat beneen phrase muy is that your bike ndax loolu sa vélo la is that your bike ndax loolu sa vélo la ñu bàyyi xel bu baax ni ñu prononcer baat bañ a wax naa is that your big déedéet your bike ndax loolu sa vélo la don't move bul yëngu bul bouger bul yëngu don't mbokk yi kon li moo nekkoon sunu leçon ñu leen di laaj rek naka la ñuy waxee ci wolof ventilateur ngeen jàppandu ci bu baax ak servie serviette naka lañ koy waxee tamit ci wolof saa wolof ñu ngi leen di xaar ci commentaire yi bu baax a baax euh, di leen sant di leen gërëm euh, ba baneen yoon jërë ngeen jëf goodbye